sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki gën jikko ci yéen yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne albirru xusnul xulux baax dëgg daal ndekete mooy rafet jikko jikko yi nag day jikkoy qualité ndax doonut lu yomb ndax jikko yu ci bari ay jikko moom lenn la xolo koy def te lépp di aju ci muñ ndax nit koo xam ne buñ lay tooñ ki lay tooñ mën ngaa fayu ba noppi jekk fayu win wi nga jéggal ko rek te yàlla tax bés bu set nit tooñ ko tooñ gu jéggi dayoo waaye da koy jéggal bëggul ku ko wax noonam bés bu set nit di ko nax ci sëñ tubaa mu xam nax yi nax xam gu wér ba noppi tàbbi ci ngir bëgg sëñ tubaa léeg-léeg nga gis nit sikk lool ayib lool bon lool waaye bu ñëwee ci moom da koy nëbbal lépp raxas ko ba mu set sàng ko ba mu set bokkoo ko kon kooku jëmm la joo xam ne la sëñ baara gisoon ci moom ba jof ko mu yor kàddu yoon wi sëñ Sidi Muxtaar ñëw feddili ko sëñ Muntaxa ñëw feddili ko mooy Serigne tubaa ci boppam moo dut lambatu sëñ Alhaji Baara moo wax sëriñ Bassirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khoudous ne ko sëriñ Bassirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Touba moo ma ko tegtal sëriñ tubaa moo ma ko tegtal kon kooku la sëñ musaa ko doon wax ne Serigne Touba karaamaati rijaal yaay sa mbuubi tum néeg te place ya ñu màggal la say gone toog sañ tubaa dafa amul gone moom li muy incarné yàlla xam ne mooy ñëpp am jàmm saa boo déggee musiba du sëñ seex boo déggee xuloo du seex bas boo déggee tontu du seex bas boo déggee bëgg sëñ tubaa seex basa boo déggee nangu ko liggéeyal te nangu ko ci def alalam eh, ak it yëg xool sëñ bi yëg ni mu neexee xam nga ki ñu tafu ba jël ci poosam téeméeri junni da ko yëgatul rek waaye sëñ Bass lim njëkk a def nga xam ne faw nit ñi bëgg ko far fors mooy ku ñëw ak noo mën a mel foo mën a dëkk ku la mën a jur koo mën a doon benn waaye rek dalay fonk fonkeel goo xam ne yëg la te nit boppam te koo gis muy dem fu mu mën a dem ci àdduna boppam la seeti ba ko fekkee rek toog kon nag te sëñ Modou Diop Thiat mi nga xam ne moom sama xarit la bokk ci njiiti Baol Medias doon koo xam ne yàgg naa liggéeyal sëriñ bi yàgg bokk ci ñi koy taxaw te loolu sëñ bi ump ko. moom xam na ko maanaam taxawu na sëñ bi guddi taxawu ko bëccëg man ak moom liggéey nañ ay liggéey yoo xam ne xudut maak moom ak yàlla ak sëñ bi xamut te loolu lépp li ko waral mooy boo mënoon naa bokk ci journaliste yi nga xam ne dañuy santaas ak di joxe fausse information ak di wax loo xam ne ku ko dégg ne ndo ak di wut xaalis waaye moom bépp information bu mu joxe bu wir la bu wor te wir na mané du santas te lumuy wax yalla rek a kon képp ko xamné ya ngi déglu suma la doon digal da ngay déglu Baol Média ndax journaliste fa ne kenn mënu leen a ger mënu jënd manam ngor lañu am sen parce que job lañu sante job mom xam nga bu dee da ngay wut gor pire ci réew mi mom moy ko sante job li li ci sama nday sante job nak taxu waye dama wir ne ku sante job du wor ba ma ko xamee ba nëgg ni mosuma dégg ci organe moom mu wax luñ naan ndo wala nu ko lii ma ne wala muy santas wala dara information bu mu la mën a jox bañ na ko buy ubbi sax panelam lam cay wax mooy information bu wér te wóor bu wér te wóor noonu mu koy waxee noonu la amee bépp information bu mu joxe jaratut càmbara ndax lu am la lu wér la. kon nak ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu taxawu ko ba fam bëgg rajoom bi ak sit bi egg fa suñu borom eggale fa ko tañ and ko mo moom alaykum wa rahmatullah amin yàlla nako suñu borom subhanahu wa taala defal lu ko ndortam serigne mbay mu mel ni serigne bi jëk dina kaddu yu am solo leral ci kan cheikh abdul xadar mbake جاءت بالفقاد لا بيرنعم ملك يا وسع سبت الله